من خيره يا الله يا من لا إله خيره يا من يجيبني دواما خيره صل وسلم سرمدا يا mu mel ni si bu yalla di wax ni denk ma sa ndaw ma del sa mak am na ñooñ bu mu ci jublu ndaw yi le faré khidmatu rawdatu ñoom réerewuñu ko xidma bi mana liggéeyal Serigne Touba Xaadimu Rasul la def yité ñu doggu ngir nekkal ko ci sam jumaam ju mag ji. fi ñëpp di daw di outi ñun ñu nekk fa lool mom moy lu ñu gëna neex ndax bo xolé tay ñi magal ci ñëpp barab Serigne Touba rek la ne gis ak Serigne bi kep waye Serigne bi jaglé ñu bon nekk fa nekk fa difa fa lu toll 15 ans nga xamante tay ni ko waxe tay Serigne bu yewon ci saar tay amana wala gis ñun lay ñëk gis. kon loolu mooy li nu gën a neex ci liggéey bi. dan ni sëñ Tuubaa mu ngi fii tëdd ñun ñu jàpp ne ñun tey jii sëñ Tuubaa bu fekkoon ne jamono nag moom dañ koy jege di liggéey ak moom suñu borom nag bu ñu dimbalee ñu ñëw ci barabam bi nekk fii nekk ci wetam di ko liggéey danoo jàpp ne tey jii suñu jamono sëñ Tuubaa dañuy mel nekk ci wetam di ko liggéey loolu tamit bokk na ci li ñu gën a marqué daal. du ñuy rekk de soxna itam kenn demul ñu des dox ci bëgg-bëgg cheikh bi lu nekk de la leen jaral. suñu xol daf ci sedd lool parce que mbégte lañ ci am ndaxte man euh, jour bi ma nga xamante ni man ci laa njëkk a xitma jour boobu dama doon dox nit ñi ñoo doon gis coono bi ci man mais man duma ko gis ñoo may xool ne ma ah yaa ngi coono mais ci xol la dañuy liggéey liggéey liggéey ba mais lu ñu dem dem dem duñu soon dañ naan bu ñu ñibbee dañ feebar sax waaye duñu sonn dara duñu dal. dangay ñëw màggal si ba ñibbi da ngay yëg sa yaram da ngay yëg sa yaram ni yow màggal nga parce que doo solu doo summiku laxasaay bii moom la ñu am ba ngay ñëw ba ba ñibbi moom rek ngay sol. xamoo tilim na xamoo tilimul xamoo set na xamoo setul lan nga ciy xool ñaq gi ngay sa gi ngay bëgg a ñaqal ku tedd gi moom rek nga ciy gis laxasaay bi nu mën a mel moom nga am mooy suñu jasneer mooy suñu lépp li ñu ñuy gën a fonk li ñu gën a fonk loo laxasaay bi nag mooy daraja gi ñu ciy am ndax nit ku la nawul woon dina la naw ñoom ñi leen nag liggéey bu am solo bi ñuy amal ci jumaa ji ngir rek gindiwaay taalibe yi du benn yoon ci seen coobare ci seen kaddu sax lu ñu namm la ci ñoom. dama naan sëñ bi moo ñu tànnal boppam ndax adduna bi yaatu na waaye sëñ waa mooy génn ñi nga xamante ni ñii bëgg nañ mu toog ci wetam xidmaal leen mu génn leen dañuy sant nag ndax xam naa sëñ bi ci boole moo tax tey ñu mën a taxaw fi di xidma ba yéen ngeen fekk ñu fi. fii ñi fiy ñëw dañuy jóge fa sori ay bërëb fu ne la ñuy jóge ñu ñëw nga wàcc seen seen coono dalal leen gindi leen ba ñu dugg ci biir bërëb bi ah loolu gën a ko neex. man suma sama sama mbégte foofu lay nekk sumay may baagante ci diggante bii rek man ñoom laay sentir barki Serigne Saliou ñoom laay sentir le fait que ñuy ñëw ñëw ba si nga indi leen dugal leen ñu ziyaar génn ñibbi dafa neex si xol barki Serigne Saliou dafa neex tey ndax tey bu la neexoon ku ne nga jëlee ko këram indi ko ndax mbébét la mais doo ko mën kon bu la sëñ bi dimbalee ngay va et vient fii di dugal soxna yi di defal seen muuraay yi di leen yedd ba ëllëg bu ñu ñëwaat dinañ mel jëmm ja nga xam ne meluñu ko woon ren wala bu déwénee bu ñu ñëwaat dinañ am jikko ji nga xam ne meluñu ko woon ren ah macha allah loolu lu ñuy neex la. man ba may nekk xale la sam papa daan ànd ak man ak samay rak ba tey sama rak yaa ngi ci biir jumaa ñoom tam di xitma sëñ Saaliw sëñ Faalu sëñ Motada ñoom ñëpp ñu ngi si biir suñu waajur yi dañu sant ndax yar bi yëpp waajur bi la foofu mooy fondement bi loolu ñu yar tàggat ñu ci sëñ bi moo tax tey du ñu mën a ñëw taxaw fii lépp loo xamante ni lu ñu war a mën a def la ci lu baax rek ñu di ko def. Mohamed Ndiaye ak Khadim ñoom def nañu ci liggéey bi fukki at ak juróom lii fitnde ni ba ñuy tut tànk lañu ci tàbbi benn jubluwaay dong moo leen ci bàyyi gunge waay taalibe yi ba ñu amal seenu màggal ci na mu gën a mucc ayib. bu njëkk da nga daan gis nit ñi dañ daan day ñëwee ci barab bu leen neexee di fa duggee lu leen neexee nga xamante ne nit sol loo xamante naka sudul noonu di fa duggee lu ko neexee mais daal loolu it bu tàmbalee liggéey ba tey ci leen gis ni loolu lu ci bëri wàññeeku na. tamit ñoo xam ne tamit ñun ñëwuñu fi ngir euh, fitnaal nit ki wala ñu ñëw fii pour sonal nit ñi. waaye dañoo bëgg nit ki suñ jugee ci barab ñëw fii li nga xamante ne mooy li mu bëgg mooy mu nekk ci jàmm ziare sëñ bi ni mu ko bëggee te du am benn xat-xat jafe-jafe du ko am ci lenn ba nga xamante ne ñëw na ba ziaram yëpp mat loolu lañ ci jublu waaye ñun nekkuñu fi comme ay soldats yoo xamante ni dañuy fitnaal nit ñi wala ñuy teg nii mais dañ leen di sàmm. jagleel rek sëriñ mooy tànn ay tànneefam pour liggéey la ñun dañoo jàpp ne ay tànneefu sëriñ bi la ndax tey du rafet juddu du rëy yax sëriñ mooy tànn ku ko neex mu liggéeyaloo kon lépp lu ciy jafe-jafe tamit duñ ko gis ñun sëriñ bi rek la ñuy gis ndax moo nu namm liggéeyloo te ku leen liggéeyloo moom faaw mu jox la ay jumtukaay yoo ko liggéeyal ba tax na lépp lu ñëw tamit dañuy jàpp ne lii sëriñ bi nii la ko bëggee rek ak noonu ñu jàppee ko mbiru sëriñ bi kepp moo tax duñ ci gis gàllankoor duñ ci gis tamit léeg-léeg ay jafe-jafe daal khidmatur rawdatu ak fatxul dinyari di ñaari kurel ci juroom ñaar yi nga xamne ñoy sam ñu juma ju maggi fi ci Touba waaye bu sen taxaway mané antu jokkuwaay way bañu am ci kurel gu mag ji ñu duppé muhaddamatul hitma moko waral kurel gi nak di dox ci lepp lu takko rek ak ñu juma ji mi ngi taxawee ci mbëbëtu waaye ndongo yi nga xam ne bàyyeekoo nañ ci askanu murit te namm delloo njukkal Serigne Touba Xaadimu Rasul la. loolee waral sax ci ndorteel ga ci bésu fukki fan ak juróom-ñaar ci weerug mars 1994 mbootaay bi sol dàllam dem yëgge ko sëriñ Saliou Mbacke mi mu fekk ci jal bi kile sax moo leen duppee tur ba ñuy wuyoo. Serigne Saliou ñaari baat li ab denk la bu len leen touba denk lon lañ tuddé aw tour mo khadamatul khidma tour wo nak ak qasida la ko xamé ne touba mo ngi talifon touba bu ba dañu da ngeen ci gis lu kawé seen jort ñu commencé nak mo foofu mo jox ab liggéey mo nañu na ngeen commencé julli aljuma yi di balé jumaa mi set takal goor ñi ak jigen ñi loolu moo nekkoon liggéeyu xedma ci le 17 mars 1994. liggéey bi nak la ci ëpp solo mu ngi xewé ci biir jumaa ji tegu ci ay charte yu leer nañ lu maté nak juróomi téméri ndaw di ci def seen pas-pas ci diruk magal gi. mbolom porte bi nga xam dafa jóge sow amna ci effectif bu fay taxaw samp nañ fa ay jëwriñ buñu duggé ba ci porte bi ne ci biir. jumaa ji dañ koy dagg par trente mètres trente mètres bu ñu dugalee vague boobu vague boobu dugg trente mètres ñu coupé waat beneen trente mètres vague boobu mën a équilibré ñu dugg ñu bàyyi la ñu dugg ba ci biir barab bi def seen siyaara ñaan seen soxla ñu génnewaat vague boobu bu ñu génnee vague boobu trente minutes ñu téye rangu góor ñi dugal soxna yi ndax sëriñ bi mosul bëgg jigéen ñee góor ñi bokk biir barab bi. moo tax suñu dugalee ba ba mu am trente minutes rek dañuy dagg rangu góor ñi dugal soxna yi suñu dugalee soxna yi ñu ngi duggee ci yokk bi jàkkaarloo sëñ saali bunt boobu noonu ñu duggee ba dugg ba ci biir barab bi ñu bàyyi la ab diir ñu xaw a séparé wu tuuti ñaan seeni soxla ñu génn leen ñu jàkkaarloog barabu sëñ Modou Moustapha ak barabu sëñ Fall ñu soog a dugalaat góor ñi. juróom téeméer ñoo yor ñoo yor liggéey bi ci ñetti xaaj ci ay xaaj am ñoo hygiène. mbale meeg alcosel yeeg masque yeeg am ñu yor ndox mi duy ndox meek rempli bërigo yi am ñu yor wàllu sàppe yi am ñu yor julli gi am ñu yor bunti sécurité bi am ñu na ci biir ñiy raas dem ak ñiy tuxal ànd ko polis ak waa gendarmerie. liggéey bi Muxaddamatul Xidma nag di def ci kanamu waay taalibe yi kenn du ko natable. daayira bi nag. noo ci sant yàlla di sant yonent bi di ñaan suñu borom jëmale ko kanam nu ñëpp nu fekkee. seen Pastef mat na seen gëm mat na seen lépp mat na waaw ndax siyaar nañu ñun ba génn nii pour dem siyaar nañu biraab yëpp ba pare ñu ngi nii di génn di dem sant yàlla rek ku ñu doon tere màggal gi ay jaayante rek lay doon barke Serigne Touba Mbacké kontaan rek non non amuñu benn coono ñu ngi organisé teg nit ñi ci yoon. di sant sëñ Touba rek. loolu lép mënut a jaar yoon parce que euh, doomu aadama matul doomu aadama matul day am foo xamante rek dañ koy kii mais bu boobaa rek dañ ciy defaat ay jàngat rek ñoom ñi nga xamee ñoo jooy rek kuréel gi. waaw am nañ seen CRD ba avant ñuy commencé te bu ñu paree aussi yaakaar naa ne dinañ amaat seen CRD kon li nga xam xool li nga xam moom mooy manque-manque yi ñu jem koo defaraat ngir déwén ñu gën a am satisfaction ñu nga xam ne ñu ñooy taalibe di ñëw di magal si. dégg mag bu ñëw danañ ko sutura takki xale bu ñëw danañ ko sutura yal leen yàlla defal sutura ak ak barke yaa rabbi xidma liggéeyal sëñ bi nag aju ci ndigal ak topp gannaaw ne lépp ab tàggat ndaw yi ci yëngu la tegee daayira muhaddamatul xidma nag mi ngi doxe ci ay charte ak yoon yu ñu ko rëddal ndax am bureau bu ko lal ànd ak yu koy dëgëral الترشيد أنعم والصفاء يا رشيد يسلمني كتابك المذكور بفضلك العظيم يا صبور يسلمني كتابك المذكور بفضلك العظيم